وزاب وكل الانتهاء على المصطفى سلم يا سبيل إلهي فسلي على من أتى مهيبا مهابا صبورا صبور إلهي فسلي على من بدا تقيا نقيا رئيسا إلهي فصل على من هدى مطيعا متابعا billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala man qaala innama bu'istu li utammima makarimal axlaaq asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah ñoo ngi yëkkati ay kàddu ci ndigal di tàmbale di siyaare ak nuyu tàmbale ko ci saayibul fadila cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke ibnu cheikh mouhamadul di ci teg sëriñ cheikh am di mbendam faal di si teg cheikh borom Daaru Xuddoos ci toog toogaayu Cheikh Moustapha Serigne Ahmadul Maxtaar Mbàkke di ci teg ki toog toogaay Serigne Cheikh Gaynde Fatma di Serigne Cheikh Abdourahman Mbàkke di ci teg Serigne Moustapha Mouhamed di jëwriñ suñ kilifa gu baax lii toog cheikh moustapha ibnu cheikh abdul fatah mbag sëriñ bi yàlla ngi fi yàgg te wér ñoo ngi lay siyaare te di la nuyu yàgg sa bokk yi ak sa rakk yi teew fii yépp ñoo ngi yégal ne leen mbooloo mi sëñ bi sa waa kër a ngi nii dellusiwaat nañ am mbégte lool am ak yow jataay bii fas yéenee déglu say kàddu jëriñu ci ren ba déwén ñaan san borom bàyyi la fi ànd ak ñun ci liggéey bii nga song ba suñu borom defal la ci lu kawe sa njort sëñ bi sa waa kër a ngi nii bi sa a ngi nii ànd ak seen njaboot góor jigéen mag ak ndaw waa daayira xidmatul islaam bi nga xam ne nii Cheikh Abdoul Fattah ci ndigeelam la taxewoon ñoom ñépp ñu ngi nii teew fi sa kanam bu Touba xidmatu islam bu Touba ñu ngi fiy teew ak seen jëwriñ bàyyi Cheikh Lo sunu jàmbaar ji waa xidmatu islam Taïf teew nañ fi ci seen jëwriñ sëriñ Moustapha Seck waa xidmatul islam Bayla teew nañ fi ci seen jëwriñ ànd ak seen jëwriñ sëriñ Cheikh Dieng waa Tindo di teew nañ fi seen jëwriñ Abdoul Fatah Ndiaye waa Nayde ak Kellel ak li ko wër ci tund woowu yëpp ñoom ñëpp teew nañ fi euh, seen jëwriñ Serigne Massamba Diop Baye Sadda Dieng moom Kellel Dieng moom it mi ngi fi ak waa këram waa dakaar ñoom it waa xidmatu islam teew nañ fi. ànd ak seen jëwriñ Baye Cheikh Mbeng waa Bambey ak tund woowu yépp ñi nekk ci xidmatul islaam ak ñi nga xam ne jotaguñoo egsi tamit ñoom ñëpp teew nañ euh, sëriñ Moustapha Faye mooy seen jëwriñ sëñ bi dongoy laxasaa yi nga xam ne jaar nañ ci kër gi ñoom ñëpp ñu ngi fii teew ànd ak seen jëwriñ sëriñ Moustapha Diop bisaab seexi daaru xuddoo si nga xam ne nii ñoo aju ci yow ñoom it teew nañ fi sëriñ Moustapha Seck Touba Saloum mi ngi fi ak waa këram sëriñ seex Diop Balla Touba ak waa këram mi ngi fi Serigne Moustapha Ndiaye bu Ngoy mi ngi fi moomit ak waa këram ak sëriñ Assane Gueye bu bab Serigne Cheikh Mbacke Gueye ca Ngaaj moom it teew na fi Serigne Moustapha Mbacke Imam Taïf teew na fi ak ñépp ñi nga xam ne nii mënuñu leen la ñoo ñëw sa kanam sëñ bi di la siyaare eh, te fas yéenee déglu say kàddu ni ma koy waxoon di jëriñu ren ba déwén bu loolu weesoo am na ay kàddu yu ñu fi war a jël njëkkanteeg waxtu bi sëriñ Daamu Fall moom lañuy njëkk a jox kàddu mu wax ci turu daayira xidmatu islaam yépp su noppee sa ju baax ji sëriñ Mouhamed Mbacke dina yëkkati ay kàddu ci sa ak sëriñ Mourtala ñaan ñooñu mooy ñi fi war a yëkkati ay kàddu nen waxoon na ma naa ko yëkkati alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala asraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa wa sahbihi wa xayri xadimi ahmad alxadim wa man tabiahum bi imanin wa islaamin wa ixsaanin ila din asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baal xaq ginnaaw bi leen baale di jiital ci nuyoo bi ak siyaar yi Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaan suñu borom subhaanahu wa taala yàggal ko fi lool te may ko wér ak sëriñ Amdi Fall Moodu Mbenda ak mboolem teel bi yépp waaye di jagleel ak ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mi nga xam ne dara tëwu ko moo am kàttan ak sañ-sañ mu dimbali ñu yàggalal ñu fi suñ jàmbaar ju baax ji Cheikh Amdil Moustapha moom Cheikh Abdoul Fatah Mbacké ñoo ngi ñaan yàlla yàggal ko fi lool te may ko wér ak mbooleem ay kilifaam te kilifaam yooyu suñ ci tuddee Cheikh Mouhamadou Moustapha Mouhamad mu mën a yóbbaale ñëpp ñoo ngi ñaan suñu borom subhanahu wa yàggal ko fi lool ba lim fa séene liggéey Serigne Touba mu def ci la kawe bu ko defee mbàkki ñoo ngi jéggul kàddu yi ñu yëkkati ci sa kanam mbokki teel bi ñooy jox seen kàddu ngir ñu fas yéene koo jottali waaye xam nañ ne liñ nar a yëkkati di ko wax yaa nu ko gën a xam mbàkki kàddu yi nag leen rek la mooy sant sunu borom subhaanahu wa sant sëriñ Touba waaye di la sant bu baax a baax mbàkki ci taxaw gi ñu taxaw ni ñu jàppalee ak ni ñu dimbalee ni ñu yiiree ak ni ñu suturaalee. mbàkke taali bi yépp bisub tey bii ñoo ngi yeesluwaat di jaayantewaat ak yow xam ne jaayante gañ jaayante woon Cheikh Abdou Fatah façon yii ne ànd ak moom liggéeyal ko ba am ngërëma Sëriñ Tuubaa loolee ñoo ngi koy yeesluwaat tey jii bu fekkoon ne joxoon nañ ku fukk mbakki ñun ñëpp maase ne di la jox téeméeri loxo te lii ñaanoon daaw mbakki loolu la ñaanaat mooy nga nangul ñu soo nu ko nangulee nga dimbali ñu lay tax ñu mun koo matale nga defal ñu pas-pas boobu ak kàttan googu ndax xam nañ ne de jullit ñi nekk nañ ay jullit topp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xare badar waaye fa suñu borom subhanahu wa taala saxalee seen ngërëm mooy kenn ba nga xam ne jaayante ne suñu borom subhanahu wa taala ba tax mu wax ne laqad radiyallahu an almuminin is yubayi'unaka taxta sajara fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alayhim wa asaabahum fathan qariba kon loolu leen jot ci ginnaaw bu mi ngërëmul yàlla loolu ñoom la ko waral mooy jaayante bi bu ko defee nag jaayante gii ñuy jaayante yow ngi ñaan nga jaa nga dugalal ñu ko te ñi nga xam ne dañoo jaayante woon ak Serigne Touba ndax bu ci duggee mu mel na ñu jaayante woon ak yonte bi sallallahu alayhi wa sallam te yonte bi ñu jaayante woon ak moom suñu borom subhanahu wa taala da ko wax ne ko inna alladina yubayiunaka innama yubayiuna allah yadullahi fawqa aydihim te jaayante googee nag kenn ku ne la nga am muy marchandise ma moom ngay jaay boo ko jaayee njëkk a dellusiwaat yow te jullit ñi li ñu amoon mooy seen bakkan ak seen alal moo tax suñu borom wax ne inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi annahum aljanna yuqatiluuna fi sabilillahi fa yaqtuluuna wa yuqtaluuna waadan alayhi haqqan fi ltawrati walinjil walquran wa man afa bi ahdihi fastabsiru bi bay'ikum allazi baayatum bi wa dalika huwa alfawzul azim kon li am solo mooy am kattanu mat ko mattali kóllëre googu kon Mbàkke li nga xam ne amoon nañu yéene wax ko bëri na waaye waxtu bi moo gàtt bañ bëgg koo yemale foofu waaye li ci am solo li ma bëgg soññ sama mbokki teel bii kenn ku ne si ñun yaa xool sëriñ bi ba mu doy la nga ñëw jaayante ak moom kenn ku ne la nga jaayante woon na nga ci gën a góorgóorlu bis bu set nga di ko feddali xam li tax nga ànd ak sëriñ bi sëriñ bi andi ñu andi ñu ak moom ngir àddina dañoo ànd ak moom ngir alaaxira dañ koo jël tax ko suñu diggante ak sëriñ Touba ngir mu seeral ñu suñu jaayante ak sëriñ Touba kon nañ góorgóorlu bu baax baax ci lépp lu mu dilee nañ ca nekk lépp loo xam ne moo ngi koy tar nañ ko wattandiku bu baax baax nañ xam ne kilifa gu matu kilifa koo xam ne képp koo xam ne wéeru nga ci moom nga bëgg suñu borom subhanahu wa mën na la ko defal te kii nga xam ne moom fi wuutu muy Cheikh Abdou Fatah Mbacke genn fànn ñaar yi kenn ku ne ci mën nga xool ci moom bu fekkee ne ak téeli bi ngay ngay sàkku xoole Cheikh Abdou Fatah nam toppee woon Cheikh Mouhamed Mbacke nga xam ne nga def ko sa digga dég sëni secteur bi dina mat waaye bu fekkoon ne mag ju ànd ak rakkam la Cheikh Abdou Fatah nam defoon Cheikh Mouhamed Mbacke nañ ko jéem a def àndee ko noonu buñ ko fee li ñu bëgg lépp nañ ko am waaye bu fekkee ne itam jaayante no sëriñ bi te waxtu wu jot liñ gis ci jamono ji soppiku su sëriñ bi waxee ñu ne li sëriñ bi wax waru ko woon a wax wala sëriñ bi li mu def waru ko woon def loolu ak des la te it bay Mbay Jaxate dafa waxoon sab sang yow bu ko muñ daa sab sang yow bu ko muñ saa doonte muñ na la sax muñ muñ lu sab sang bon day wàññi sas ndoole koo xam ne am na la am say naw la boo ko muñee mu nangu sa cant jox say naw la ngay xoole kon mbàkki ñëwi tub bu baax baax li ci xol yi yaa ñu ko gën a xam li lay ñaan mooy nga ñaanal su suñu borom subhaana taala doolu ñu xéewal ak wërsëg ak fan wu gudd ba liñ la bëgg a liggéeyal ñu def ci la kawe njortu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mu am lu ko ñor lool loo xam ne daa bokkoon ci dénkaan yi nga xam ne maamam ja sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké da koy bàyyi woon waaye waajuróom bi mu fi wuutu woon tamit di Cheikh Abdoul Fatah dox ci soññee ci ba yàlla def yan bi si ci moom kon mu leen di yëgal ne képp koo xam ne mooy sa bunt ci sëriñ Touba daayira bii nekk ci biir kër sëriñ bi ñu koy xidmatul islaam ak foo man nekk jox na la digal nga bokk ca te di ca dox te ca kenn man nee na kon na ci ñépp nekk soññ ci njaboot gi soññ ci soxna yi soññee ci nee na loolu lum ñor lu ko ñor la lum fonk la ndax dana ko dimbali ci ñaar mooy lépp loo xam ne ab taal bi war na koo yittewoo ngir mu mën a agsi ci moom bu jaaree ci jëwriñ yi nga xam ne ñoo jiite daayira bi dana mën a agsi ci moom waaye dana tax ndigal nga xam ne moom lay joxe tamit mu koy mën a jaarle foofu ci moom kon ñun liñ ci war a def mooy ba yàlla defee mu nekk fii toog teegu toogaay Cheikh Mouhamadul Moustapha ba léegi kenn musa xam ak bëggam kenn musa xam ak yitteem kon lii nag mooy bëggam mooy képp koo xam ne daal mooy sa buntu ci Serigne Touba sant na la nga bokk ci liggéey bii te bu ci kenn man te gën cee góorgóorlu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. salaamaaleykum mbokki taaliba yi sëriñ baa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci sa tur ak sa sant xanaa di bëgg lool rek ci taxawaay bi taxawaay bi rafet na lool sañ baa ngi sant ñëpp di leen gërëm. ngeen xam ne liggéey bi ngeen di liggéey liggéeyub sëñ Tuubaa ànd gi ngeen am ànd mel ne ren daa am ak soppiku dañ ko gën a yaatal gën a yaatal liggéey bi gën ko nos na ngeen xam ne ndigal loolu sëñ bee ko joxe te ngeen gën cee ànd ngeen gën cee jàpp te xam ne lépp ci yéen lay dellu si liggéey sëriñ Tuubaa moom njariñ li ci ñun ñi koy def ci lay tàmbalee ci lay jëmaat itam ci lay tàmbalee ci lay mujje dana xam ne sëñ bi mi ngi fàttalee ñu gën a góorgóorlu ci jàppante di fàttalante tamit ci jaamu yàlla ñu xam ne jàmm yàlla moo ñu fi indi moo ñu fi bàyyi itam kenn ku ne nga def ci sa kem kattan ñu ngi leen dënkaat seen lislaam kon bu baax a baax kenn ku nekk nga xam ne ni ko sëñ mag bi tënkee ñu waxee ne amantu billahi wa bil malaa'iki wa kutbihi wa rusulil manasiki amantu bil yawmil azimi wal qadar naawiya fi'li ma bihi llaahu amar min alsalaati walzakaati walsiyaam wa dikrihi wa xajji baytihi alxaram kon ñu xam ne loolu mooy ci tënk lislaam sëñ bi gannaaw bi mu ko bi mu waxee lim doon itam dañu ko jàngal ci ay téeréem kon mi ngi soñu ñëpp ñu gëstu juwaat ko bu baax a baax te amaat ci pas-pas bu sell ci jaamu yàlla ndax moo ñu may ndamal tey moo ñu may ndamal ëllëg te sëñ bi tam nañu teewlu borom màggal bi bis bii bisam la dañ ko teewlu liggéeyam bu rëy ba la muy rëy rëy nattoom yu rëy yamu tegoo coono yu mag yamu tegoo bëgg ñu jariñ rek moo tax kenn ku ne ci ñun na teewlu loolu te xam ne li ñu war bu bu dara tee ñu nekk ci nañ def suñ kem kattan ci jaamu yàlla jàppante dimbaleent dimbalante yàlla tax sëñ Tuubaa mi ñu mi ñu jàngalaat loolu lam doon wax na ci téereem ne uxyi uluma diini bi pooli fi fustu bil maxfi yi wal ma'lufi moom mi ñuy soññaat yeesal suñu pas ci lislaam moom warloo téere yi ñu koy jànge te def na ko ba mat sëkk kon mi ngi soññaat ñépp ci seen pas-pas di leen wax itam ne ni ngeen àndee nii mbooloo sëñ bi gis na ko bég na ci lool xolam sedd na ci guy mi ngi leen ci gën a soññ ngeen xam ne liggéeyub sëñ tubaala te kenn ku ne na jàpp ne li war a tax mbir mi dox li war a tax mu jëm kanam moom moo ko war a def kem kattanam ngeen nekk ci ci lu nëbb ak ci lu feeñ ñun ñëpp tam ñu ànd ci loolu ndax loolu rek moo ñu fi bàyyi liggéeyal sëñ Tuubaa ñu fi bàyyi kon te liggéeyal sëñ Tuubaa mooy jaamu yàlla sëñ Tuubaa mooy yoonu yàlla kon nañu xam ne loolu rek moo fi nekk ñu gën cee góorgóorlu bu baax a baax a baax te xam ne pay gi moom sëñ Tuubaa ba mu liggéey liggéeyam bu rëy ba suñ borom daf koo jox mboolem lu baax jeexalu dara lépp luy lu baax rek sëñ Tuubaa suñ borom jox na ko jeexalu dara te moom ma ne mallakanil maaliku kulla jaamixi wa la masjidin munal majaamixi nee na njariñal mbooloo yi suñ borom moom loo nak ko kon képp kuy mbooloo mi bëgg lu baax da nga xam ne lay sa njariñ suñ borom moom loo na ko sëñ Tuubaa loolu ci payam la bokk kon ñu ñëpp nañu àndaat ci pas-pas yi takkaat ndigg yi te xam ne dara nekk fi lu dul jaamu yàlla liggéey la si sëñ Tuubaa loolu rek moo fi nekk ñu góorgóorlu ci bu baax moo nuy may namal tey mënu may nawal ëllëg sëñ bi nee na mi ngi sant bu baax tamit ci taxawaay bi ndax gis nañ ni ngeen ko wutoo ci ci liggéey bi di dundal joxe ñam ci gan yi loolu tamit ci liggéey bi la bokk ndax day dugaat ci yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinaw wa yatimaw wa athira innama nut'imukum li wajhi llahi la nuridu minkum jazaa wala shukura kon loolu suñ borom moo ko digle muy taxawaay bi ngeen taxaw ci ci gan yi ba kenn du xiif kenn du mar sant na leen ci bu baax a baax a baax ci ngeen ko fekk waaye itam ànd ngeen ko ak moom te na mu gën a rafete mi ngi sant ñëpp kon di gërëm ñépp di leen ñaanal suñu boroom nangu la na bu liggéey dañu yàgg koo fekke te njaboot gi kenn bañ a te lépp di di ngërëm waaw mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu عليك سلام الذي أبتغي لديه الفوز يريد